waaw mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan euh, ci xasaay TV ba léegi ñu woyee liggéey bi ni ñu ko waxee léegi ñu ngi fii ci euh, Touba Darul Minan ci pencum Serigne basiru Mbacké euh, jamono ji nag ni ñu ko waxee léegi mbooleem membre daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp tey dajaloo nañ fii ci euh, Touba Darou Minane fa seenee xaar Cheikh Mouhamadoul Mountakha daanaka jamono ji euh, kilifa yu bëree bëri teew nañu gis nañ léegi Serigne Amsatou Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Lahad Mbacke naka noonu euh, Serigne Fallou Mbacke moom sëñ Cheikh Baare Matalay ak yeneen kilifa yoo xam ne jamono ji teew nañu ci baas bi ngir xaar Cheikh Mouhamadoul Mountakha ngir mu war a ñëw daal di nag amal liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def tey muy siyaar annuel bu daara Hizbut Tarqiyyah daara khudus jamono ji nak nuñ ko xamé euh sëñ bakka ciun lañuy ñuy xaarandi moom mooy jëwrin ji wax nañu ne filé ci kanam tuuti inshallah dina ak ci bërëb bi ànd ak mbollem ñi nga xamni ni moy mooy yi mu wara àndal liggéey bi comme dal niñ ko waxé mbokk yi jamono ji su bobu légui ya nga gis liggéey bi mi ngi wéy amna euh lim bu am solo bo xamné jàng nañ ko fi ci kamel alxuraanul karim naka nonu qasida yi ba légui dogut ñu ngi koy durus ñi di koy yëkëti jamono ji kurel 1 national bu Hizbut Tarqiyyah Daara khudus sëñ Makhtar jenn jité ko ñom ñoy yëkëti jamono ji xas dak mu xadamaatul am daax fii masaaya miftaax mu nekk liggéey bu am solo kon dal mbokk yi nga xamni yéen a ngi ñu bàyyi xel jamono ji ci xassay TV inshallah taala ni lañ ko fas yéenee amale fi ba sëriñ bi génn fi ba liggéey bi noppi lépp lo xamni ni na fi rek dañ leen ko aggé mo xam ay reportage la mo xam ay interview mo xam kilifa yi nga xamni jamono ji ñëw nañ fi fa seen yëkkatee kàddu incha yéen a ngi jàkkaarloo ni ak Serigne Mbacké Thioune moom mooy jëwriñu daara hôpital xé daara Xudoos mo nekk ni kon euh di aksi ànd ak délégation bu am solo lool boo xam ànd nañ ak jëwrin moom itam mu nekk daal ni ñu ko waxee liggéey boo xam ne tey lañ ko ci Cheikh Cheikh Basir mu nekk Bohamne, boo xam ne ni ñu ko waxee ndaka jekk daara ji baaxoo na def ci ki fi ne nekkal Serigne Touba jamono ji muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ñukoy ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér. yéen ngi gis sama ginaaw jëwriñ Sëñ Mbacké Thioune mom mo nek non di doga aksi ànd ak délégation bu am solo euh, ñu fas yéene ànd ak moom euh, kon day mel ni jamono ji daanaka mënees naa wax ne lu ëppoon solo ci liggéey bi jamono ji yemb na euh, ndax sëñ Mbacke Thioune agsi na kon day mel ni file ak ay waxtu yu néew incha allahu taala Cheikh Mamadou Mountakha dana agsi kon ci biir bërëb bi daal di teewee liggéey bu am solo bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar muy siyaar annuel bu daar Hizbut Tarqiyyah daar Khoudoss kon xam naa dama leen di bàyyi rek ñu ànd ak ñun daal di nag seetaan jëwriñ sëñ Mbacke Thioune ak délégation bi mu àndal